maaleykum sénégalais yi nangeen def maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen siyaar waa live bi nag du gudd lu gàtt la dama nekk di ko def parce que dama liir léegi ci réseaux sociaux yi ñu ne mag i sàll dafa wax ni du dem jël jëli sénégalais yi nga xamante ne nii ñi ngi Chine te fi ñu nekk dafa am benn virus bu fa nekk bu nga xamante ne nii day rey ay doomu aadama comme weñ léegi nag man may euh, quoi hein? ah tu as de ça là c'est branché ah ok léegi man ah c'est bon ok may interpeller ñenn rek quoi parce que lii dafa leer gis nga yéen ñi ko foteloon ak ñi ko sàccal ak ñi koy saagaal ci réseaux sociaux yi ak di ko kaasal tout ça xam nga bakkan dafa foor bu ngeen xoolee ci film yeeg ak fu mu mënti xew américains yi muy français yi maanaam xeetu nit ku weex bu ñu amee seen benn doom bu nekk ci guuta dinañ fexe dajale arme beeg seen moyen yi ñu am yëpp pour dem jëli ko xaj sax dañ koy sauver waxatuma laa nag ay sénégalais yu bëri yu nga xamante ni ñu ngi waan fu nga xamante nii foofu la virus bi gën a tare moom Sénégal jox ko avion Macky Sall muy tukki di jaabante di waaxu dem fu ko neex ay doomu sénégalais nekk bitim réew seen bakkan nekk ci cu gerte mu leen di yónnee ay kenn ku nekk 1000 dollars léegi yéen ñu ko foteel xam nga lu ma la wax di def ay nedd ko bandu mag ak ñeneen ñi nga xam ne sax defuñu ko mais seen poos rek léegi imagine leen yéen bu fekkoon seen benn doom mu ngi foofu war a dee ngeen xam ko te xam ne buñ ko yónneewul avion état Sénégal taxawu ko bakkanam nar naa rot yee bàyyi leen seen xel ci loolu ngeen xool ki ngeen àndal nii kan la man loolu rek laa amoon lu ma leen di wax quoi parce que mbooloo mooy doole benn sénégalais bu fekkee dafa génn am problème tourné ci wetam gis fukki sénégalais yi ko jàppale bu boobaa xeexal Sénégal dina yomb mais seen bopp rek bopp sa bopp bopp sa bopp lu ma dalul rek xam nga bu dalul keneen amul problème Baye Fall loolu du yëfu nit loolu du yëfu nit. chaque jour ngeen dugg ci jàkka yi tolloole ay mbagg am fa yàlla di jàngale chaque jour ngeen dugg ci jàkka yi tolloole ay baaraamu dëy am na di jàngale mais soxor bi nekk ci ñun nii iñaanante bi bañante bi nii whatsapp lii fan la jóge quoi lii lii lan la nit ñi dañ ko wax a wax a wax a wax a wax a wax a wax a wax ba sonn ba sonn gis ngeen rey yi fan yi ni mu bëree ci dëkk bi waxuma ci woon sax te fas ci woon sax wax mais ak live bi ma def ni foog ma sànni ci ay kàddu te waxoon naa ko dama koy répété waat encore une fois gis nga bu ñu moytuwul sàggan xam nga sàggan négligence sàggan dafa garaaw xam nga nga yorum réew comme ñëpp say moroom yoru réew ngeen na ay nit ngeen ay intellectuel ngeen ngeen na ay jullit ngeen di dem di waaxu di ñëw sàggan ba amatu leen dëkk buñ moytuwul loolu moo ñuy dal dinañ dem ba benn jamono bu nga xamante ne ni 9h laa la wax fu mu jotee ci guddi barki maam Cheikh Ibra kenn dootul génn sa buntu kër parce que boo xoolee boo xoolee imagine toi région bu nekk boo moytul am na benn lycée wala ay lycée élèves yi fa nekk di def terminal fas yéene dem université gis nga loolu ni mu toll ci ñaata million de sénégalais ni mu toll ak ñi nekk biir université di jàng war génn pour wut liggéey ak ñi nga xamante ne ni seen biir jàng bàyyi nañ li euh, bàyyi nañ jàng fas yéene wuti liggéey mais moo nit ñu bari ñooñu bu ñu explosé ci town bi fas yéene génn ne dañoo bëgg wut lu ñu am. yaakaaruñ ko ci restaurant bu ñuy liggéeyee yaakaaruñ ko ci bureau bu ñu war a mën a toog yaakaaruñ ko ci pousse-pousse bu ñu war a mën a pousse sax pour wàccee benn 1000 francs wala 2000 francs mais attender mais ñooñu bu ñu amul xaalis nu ñuy def mais ci quincaillerie la ñuy dugg wut euh, euh, euh, comment dirais-je wut ay jaasi ñenn ñi dem marché Ocass bu Mbàkke wala feneen jënd seen ay goonaa bàyyi ba nit ñi tëdd ñu dugg leen fekk leen léegi seen biir kër yi di leen rey te fekk boobu yàlla mi ngi ñu jox xel ci même jamono boobu ñu ngi xas pël Fuuta bi ci même jamono boobu ñu ngi xool Nigérien bi naan ko ñàkk nga ay nante yu nga xamante ne nii bu ñu waree tekki wala dundu jàmm rek foog ñu génn seen dëkk dem benn France wala États-Unis wala feneen ak feneen au moment où tout se passe dans nos yeux tout se passe sous nos comme sa léegi ñu foog ne loolu noonu ndam la boo koy wax yow mi koy wax yow la ñuy jàppee dof bërki de maa ngi si benn euh, euh, live bu nga xamante ne ay sénégalais yu am jom ñi ngi génn xaw ma fan lañ nekkoon ci banlieue bi di distribuer ay flyers mais ñi ñu koy jox ñu ngi leen di xool nii wala bu ñu demee ba encaissé ko bu heure jub jotee du ñu jóg dama fekk sama maam xeexalu ma ko sama ndey xeexalu ma ko sama baay xeexalu ma ko ma dem ba découvrir dëkk bi di ko xeex te kenn woowu ma ci ne ma kaay non non non dama ne état bi yéen laay waxal avion boobu Macky Sall di dugg di dem ak ñëw moomu ko sénégalais yi ñoo ko moom baayam moomu ko ndeyam moomu ko maamam moomu ko na dem mu jëli sénégalais yi na dem mu jëli sénégalais yi liveurs yi wax leen ci loolu jël leen ci ko jël leen jël leen seen téléphone yi ngeen wax ci loolu yaa ngi dégg imaam yi wax leen ci loolu sëriñ si wax leen ci loolu yéen ñi am ndombal tànk di xam nga wax leen ci loolu bàyyi leen seen bopp sama bopp sama bopp sama bopp bi ngeen nekkee kuñ ci jox xaalis loo doon kaas xam lu ma la wax nga arrêté ko kuñ ci jox xaalis bu fay ko danga daan défendre askan bi nga dem di wax leneen bàyyi leen seen jikko bu bon boobu meen seen alxuraan bi ngeen di jàng dafa am lu mu leen war a jëriñ kamoon màggal yi ngeen di dem dafa am fu mu war a feeñ ci yéen masaalu wasifa yi ngeen di toog dafa am fu mu war a feeñ ci yéen dëkk bi ku mu neex dugg ku mu neex génn crime boo ko defee tey pour ñu jàppale c'est tout un problème dégg naa ay meeru seetkat la ñuy dem woo pour ñu seetal leen naan ki ki rey fu mu nekk quelque chose comme ça xoolal ma yëfi dof yooyu empreinte nit nekk fi fu mu teg baaraamam normalement fu auto sax laa la wax buy jàll suñu scanné empreinte bi war a xam kii kan la exact li mais ci ndox gi lañu war a nekk di ci continuer di dem yàlla baax na cey lii moom doy na waar njeex moo tax xoolal barki maam Cheikh Ibra Fall maa kenn te xoolal fi ma koy teg di ko xotti nii wër na Cheikhul Khadim tàmbalee gu ma sax dem leen ngeen jëli sénégalais yi nekk Chine su ma amoon tey sama rakk bu boo xamante ne dama bokkal moom ndey ak baay wala kenn ci yéen kuy seetaan sa doom nekkoon fa wala sa mbokk di nga bëgg état bi jëli ko. kamoon yow wax leen ci loolu ñu dem jëli sénégalais yi nekk Chine Baay Fall yee da ngeen war a defaraat seen toogaayaa man waxuma ak gouvernement bi kese de sénégalais yéen seen bopp en général Baye Fall yee it's time to stand up it's time to bëggante it's time to nekk nit it's time xam nga lu metti benn sénégalais xam nga metti 15 millions de sénégalais yëpp mais fan ngeen teg lu nga xamante ne nii bu fekkee dafa am keneen kum dal dalu la yow sa yoon du ci nekk dangay ngay moom ci biir jàkka ji di ko teg mbagg mbala bu weeru kor wala wala bu korite jotee mbala tabaski nga naan ko baal ma àq jikkoon naa fekk boobu noonu mooy lan salaamaaleykum